loo xam ne mu mënuñoo toogeetu laaj ñu la ko naam bo euh, wax nga ci mais mënu si ñàkk wax muy kan man fu ma toog dama représenté comme yaay Wally Ballago Seck sa doom ñu gis anniversaire bi le 27 la woon macha allah àdduna yëpp feete ko àdduna wërngal képp yëpp Amérique Asie fu nekk Sénégal muy góor muy jigéen tey ñu gis macha allah ustam fan yi am lu coow lu bëri lu daal ci ci benn police benn gendarme laay wax tey yaay booy en tant que sa doom ba nga yëgale ak coow li ñi dugg waxee ni ñi dugg waxee ni nan nga wax ak nan nga fan nga far du ma ne fan nga far sax mais fan ngay joxe dëgg. man man man man ci sëñ Saliou far. ak sa oh waaye waali sama doom. dëgg la <laughs> te xam naa du def lu nu koy. déedéet xam nga lu ne daa xam droit mhm. waale kafe Touba la ku ko bañ doon di. barke Serigne Saliou ko def sa bopp metti xam nga luy problème bi bindal ma damay fay. bësu bindal ma damay fay la. gendarme am na bës. am na bës mënu yëpp wax yaay booy. amul problème amul technique amul amul leneen ku ñu mënti doon ak ku mu mënti woon doon. Mhm. ak kan ku mu mënti woon doon. Mhm. bindal ma. ma fa rek te mooy yoon déggaatuma leneen moom nga dégg moom laa dégg moom la keneen dégg. kon nag bësu policier ba. bësu gendarme bi la du policier sax policier yi xaritu. Wally Seck lañ ay fan si Wally Seck lañ. la policier ñëpp xame nañu. Mhm. Wally Seck. Café Touba la. ku ko bañ. doo ndékki mais koor gi nañ ko um ba jeex. Mhm. waaye daan toj Gambie. Hmm. toj kees toj Italie toj France toj Grand Théâtre ñu weer weeru koor waale ci stade bi rek lañ koy gis. Oh. waaw léegi nag. waay waay foog mu toj tali bi. toj ah. di ñaan yàlla ndegam yàlla may nañu kooru jàmm. mais bala ñu dem ci ñaan bi koor bee tàggatoo yi comme da nga nekk ci wàll dama bëgg ñu kon na ci euh, anniversaire bi. gis nañ ne jàll na loo koy ñaanal ci anniversaire bi. la ma ko ñaanaloon daaw rek laa koy ñaanal hmm. te xam naa ñaan gi jigadiwu ko. Hmm. ma koy ñaanal ci dara jëy sëriñ Saliou sama waa hmm. xam ne bu ma demaatoon. bu ma judduwaatuwaan. ñëwaat jamono bu ma ximmilikoo rek. sa sa soxnaay da Saliou rek lay tudd. Ah, wallaay dëgg la. bu ma fi yàggee. Mhm. soxna Aida Saliou lay tudd ba këram ay faat. su ma demaatoon su ma dekkee. yow man xiyaam ku ma laaj noo tudd soxna Aida Saliou mhm. laa lay wax. wallaay la yaay booy. Saliou rek laa bëgg. Saliou rek laa bëgg. kon man. dama ko daan ñaanal rek laa koy ñaanal sama doom ci faramaareen mariasin dama koy ñaanal gudd fan mm-hmm. waaye dama koy ñaanal wér mm-hmm. waaye dama koy ñaanal bu wéree mm-hmm. ku ne ci ginnaawam ak ku ne ci xelam mu bëgg ak ko ko yéene yàlla na ci law yàlla na ko suñ borom taw tawféex te ñëpp ko bëgg boo ñaanalee waale ñaanal nga Sénégal gi ndax ku nekk ko bëgg kër goo dugg am na waale yi kon dañ koy ñaanal loolu kon loolu rek lañ koy ñaanal lañ ko ñaanaloon daaw mhm. te yaakaar naa lépp di mbégte mhm. lañu koy ñaanalaat ren rek ci anniversaire am bi mhm. yal na ko yàlla may gudd fan yal na ko yàlla may wér yal na ko yàlla sàmm-sàmm mboolem jullit di ñaan suñu koor gi ñu génn ku fekke ren yàlla nga fekke déwén te bu nu ko fekkee li fi nekk ci ay gàkk-gàkk yàlla na ko suñu borom raxas yal na yàlla tàppe xoli yi képp ku xuloog nit yàlla nga jubóog moom